لا يا الله لا ألا يا الله ألا يا الله ألا ألا يا الله rabbi asrax li sadri wa yassir li amri wa axlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli www point bismillahi rahmaani rahim euh, mbokki taalibe bi ñu leen nii di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla def tawfiq di leen ñaanal fépp foo leen toll ci àdduna bi yàlla ñu doon leen yàlla defal tawfiq defal ko jullit ñu ñëw ci liggéey bi tey ñu indil leen aay bi nga xam ne mooy zaali zaalikum xukmullah yaxkumu baynakum wallahu alimun xakimun képp koo ameel bor mu bëgg la toroxal moo xam lu yaas la moo xam lu mu mën a doon mu bëgg la toroxal yaa ngi bind aaya bi juróom-ñaari yoon nga rëyal miin yëpp fi ma def x yi nii ci ngay dugal turu ki la bëgg toroxal wala ñi la bëgg a toroxal nga ut butel def ci téré bi ut suuf bu sel, sol ko ci butel bi yëngal ko ba gisatoo téré bi nga dem gas fu sel, mais boy sul butel bi danga koy joutal insha allah rabbi ñooñu la bëgg toroxal wallahi la azim duñu mën ci yow dara waye nag dafa am char bo amé na nga dem fay ñu ngi leen nuy di leen ziarah di leen ñaanal yalla yalla yalla def tawfiq yalla sam mbolo ñun ñep xamna naa ne vidéo yi mom bu ñew rek du doy ay bi dafa am ñuko sakkon motax ñu duggal ci ñu leen ni ziara di ñaan kep ku ko jëfëndiko yalla na la yalla defal taw fi ñëwaat ci liggéey bi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen ni ziar bu wér a wér a wér a di leen ñaanal yalla suñu kaddu fekk la ci jamm fekk leen seen fekk seen njaboot ci jamm ñu leen ni ziar bu bëree bëri bëri ñu ñëwaat ci ba léegi ci aay yi rek ay côté kese la wallahi azim ay alxuraan yi ay côté kese kese kese la ñu ñëwaat ci da ngay jël bu in yurit ka bi xayrin xalaa rada li fadlihi mu jox la 1654 nga jël wa yuuti kulla si fadlin fadlahu mu jox la mu jox la 1587 nga jël yusi bu bihi mu jox la 89 booleen leen boolente yaa ngi am 3330 nga diviser ko par 5 moo lay jox 6666 léegi nag dañuy dem bu in wiridka xayrin fala rada li fadlihi yàlla nee na et s'il te veut un bien nul ne peut le repousser de sa grâce yàlla su la joxee buggee jox xewal waajkat bi nee na ceenu boto sax du ko téye kenn mënul téye ay xewlu yàlla bu mu yëkkati jëme ko ci yow du doomu aadama bu ci mën dara dara du malaykat du dara lu yàlla sàkk lu tere xewal googu yàlla jox la ko mu teg ci nag ne wa yuuti kulla zi fadlin fadlahu il vous accordera une belle jouissance il vous accordera une belle jouissance. Woyuti Kulazi Fadelene Fadelo, il veut apporter là une belle jouissance. Woyusi Bubihi, mon il en gratifie. Il en gratifie qui il veut. Il, Woyusi Bubihi, il en gratifie. Yalla moy grat mo lay yëkëti mo lay jox ay grat mo lay gratifié, mo lay bëtt ak xewal lepp suñu borom mo koy moo tax lii nii incha allahu ni koy liggéeyee nag boo defee mën nga julli wala nga bañ a julli nee na nga set nga julli ko nga julli wala nga bañ a julli yaa xam bu la neexee defal sa ñaari raaka bu njëkk bi alam nasara set deuxième bi isaa jaa a set gannaaw faati nga sëlmal nga def salaatul faatihi sans nga def asafurla sans salaatul faatihi di fukki yoon nga jël sa kurus nag wa in ka bi xayrin fala raade radaa li fadlihi wa yuuti kulli zi fadlin fadlahu yusibu bihi wa in yuridka bi xayrin fala radaa li fadlihi wa yuuti kulli zi fadlin fadlahu yusibu bihi yaa ngi koy wér 333 nga pare nag nga jël sa kurus astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha 3330 da ngay def 30 def 300 def 3000 ba pare ci istixfaar gi nga jëlaat sa kurus wa in yuridka bi xayrin fala rada li fadlihi wa yuuti kulli zi fadlin fadlahu yusibu bihi wa in yuridka bi xayrin fala rada li fadlihi wa yuuti la zi fadlin fadlahu yusibu bihi nga defaat ko 333 ubbee nga 333 def istixfaar 3330 tëjeewaat 333 wallahi azim sëriñ bi samedi la premier de jëlaat jëlal dimanche le deux liggéey ko nga xool képp ku toog ci lay wàllaayil azim yow ñàkk toxu na ci kaw li may jox fii li may joxe fii yëpp tey teg teggi la lu ñu teg teggi di ñaan yàlla képp ku jëfandikoo yàlla na la yàlla defal barke ba tey ñu ñëwaat ci liggéey liggéey bi encore ñu indiwaat beneen yoon ci ci wàllu zikkër képp ku nekk ci xat-xat maa ngi lay digal lii na ko def incha allahu rabbi da ngay def fatihatul kitab benn yoon ngay def fatiha benn yoon soo paree nga jàng wa anaatil wujuhu lil xayul xayum wa anaatil wujuhu lil xayul xayul nga def ko 129 yaa ngi koy def 129 deuxième raka bi nga jàng faatiye benn yoon deuxième raka yaa ngi jàng faatiye benn yoon nga indi wa fi sama i risque xum wa ma tu adoona wa fi sama i risqukum wa ma tu adoona nga jàng ko 174 nga sëlmal nga def fatihatul kitab nga sëlmal nga def astaxfirullah téeméer salaatul fatihi salaatul fatihi yaa ngi koy def euh, dix fois dix fois salaatul fatihi léegi nag nga jël sa kurus nga sikkër yaa yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum yaa ngi koy def cent vingt neuf yaa xayu yaa xayyum nga def ko cent vingt neuf nga jëlaat sa kurus defaat yaa xayu yaa xayu yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum cent vingt neuf nga jëlaat sa kurus nga def yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum yaa xayu yaa xayyum ba muy cent nga jëlaat sa kurus yaa ngi koy def onze fois cent boo paree ci boobu nga jël yaa latif cent soixante quatorze fois onze yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif cent soixante quatorze nga jëlaat sa kurus yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif jëlaat sa kurus yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif cent soixante quatorze ba muy onze fois léegi def nga ñaari yaa yaa xayu yaa xayum wirdu nga ko ci adadu latif léegi yaa latif wirdu nga ko ci ada adadu yaa xayu yaa xayum da leen jaawale te ma leen jaawale maanaam ni ngeen ni nga ko liggéeyee soo paree nag nga tëjee ko ñetti peru salaatul faatihi du samedi le premier samedi mooy le premier nga def ko samedi dimaas altine talaata àllarba yow yaa xam bu la neexee nga def ñetti fan bu la neexee nga def juróomi fan bu la neexee nga def ñeenti fan ça dépend de képp ku nekk ci xat-xat boo defee lii sunu borom dana la génne ci xat-xat yi nga nekk wallahi azim ndax boo jëlee 174 174 fois 11 égale 1914 nga jël 129 nga jël 129 fois 11 égale 1419 ñoom ñaar ñëpp 1914 plus 1419 égale 3333 wallahi al azim li ku ko liggéey la la ko bi yow taggo nga ak ñak ñak yow taggo nga ak mom moom ku nga yow wallahi al azim yalla na ci yalla def barki képp ku ko jëfëndiko jërë salaamu aleykum